laa yaakaar pour yàlla ragaluma la parce que Seydina Mohamed man su ma tiitee war may ragal ñu war maa rey dëgg la romb gaynde laa waaw mais nag da nga war a génn xale laa te dama rampe sama yoon man lu ma wax chaque jour kenn téewu ma sama loxo jàppale ma sama yoon maa rampe sama bopp di dox ci escalier yi ba première deuxième troisième ba quatrième ba ca kaw. alors man fa laa bëggoon ñëw sax yaay faal li muy def daf ko feeñu wala lu mu jàng la wala wala daf ko jàng wala wala lan lu mu demee noonu dafa xëy rek di seet wala mu xëy rek di gis. mais nag sànq ba léegi nag waxagoo ñu fi dara lu leer loo gis. balaa ngay dem fii moom tey di ñu wax lu leer loo gis. ndax nit ñi fi mu ne élection yi di ñëw de waaw dëgg la rek. allo salaamaaleykum. ba ba màcc ni ñu lijjanti loo. waaw sëñ bi noo def. maa ngi ngi ñu ngi lay nuyu di la dalal. mane ko ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, danga bëggoon dégganteeg yaay Fall. waaw. mu ngi lay dégg yaay Fall wuy ko noo tudd ak fooy wootee. Eh, maa ngi hmm? Fatick. Fatick dégguñu la bu baax sëñ bi boo mënee yokku baat bi tuuti rek. allo euh, nga baal ñu tuuti rek dégguñu la bu baax. man maa ngi Fatick. yaa ngi. Fatick. Fatick. voilà. Euh, dëkkum Macky Sall bi moo la yónni wala. dëkkum Macky Sall waa Sall moo la yónni ci Yaay Fall Yaay Fall waxal ak moom. ki kay wax yow di ko gis xam nga Macky kii Macky ko yow ci de waaye Fatick de yooya fa ne moo fa escalé moo jógee Gambie dañ maa diri ba Dakar waxtu ba ma indi woon sax ma andi yooyee ma doon diri sëñ bi da nga bëggoon yaay fal seetal la waaw waaw da wax nag xanaa da ngaa tax dama da ngaa tax walla wala Fatick moo amul moo amul réseau. waaw ah? déplacé wu tuuti rek pour ñu dégg la. foofu amul réseau déggoo ñu baax. ah déggoo ba léegi. léegi koy jox sa tur rek moom mu man la seetal. Ah, eh, Ahmed Babou. ah. Ahmed la tudd Yaay Fall. loo gis ci Ahmed Babou. Ahmed Babou ñaata at nga am. 39. 39 ans. 39 ans. waaw. accord Ahmed nga ne yaa ngi fan Fatick. Mhm. waaw. d' accord Ahmed Babou borom mu ne lu ma njëkk a wax ci seet bi. Hmm. mu ne dinga am soxna. Hmm. waaye soo amee soxna. coow moo hmm. koy génnee seen biir kër. coow. di nga am soxna laa wax soxna. waaw. boo amee soxna coow moo koy génnee seen biir kër. dégg nga li mu wax Ahmed Babou. waaw. na di nga am soxna waaye bis buy génn kër ga maanaam coow moo ko fay jëlee. Mhm. allo. allo. man waaw man lu hmm. mhm. tontul ma soog a continuer parce que. ma ne la waaw. nee na waaw. ana sa jabar daa dem. non mu ngi fi de. demagul. non demagul. am na coow wala amul coow. am na kay tuuti rek. tuuti rek boobu tuuti nga ko def mais du tuuti de. Hmm. parce que da koo jàpp ci xolam te bàyyeegul xam nga loolu. ah ok. te coow loolu noonu woo ay kilifaam ba wax leen ko. Mhm. Hmm. dégg nga lu ma laa. waaw waaw dégg naa ko. te sa seen kër goo ngeen nekk seen kër famille boobu nga nekk noonu seen kër famille bi nañ defaraat kër gi ndax xoli àndoonu te liggéeyante bi bari na fii gis naa ñaari xar yoo xamante ni mi ngi si kër gi mais ki ko moom da koy diri génne ci ko kër gi te bu koy génnee hmm. am na ay affaire yu ci am seen kër goo ngeen dëkk nga baal ma sëñ bi mais dafa jaxasoo nga baal ma nag mais ay jaxasoo laa ci gis mm-hmm. hmm, hmm, yaa ngi may dégg waaw waaw nga demoon di fa liggéeyee ji ba mujj retourné waat ñëw foofu. nga ne. ban dëkk nga demoon di fa liggéey ji ba retourné waat ñëw foofu noonu. waaw Mauritanie waaw. Mauritanie nga demoon. Mhm. d' accord loolu laa gis sama gis nga dem si benn dëkk di fa liggéey mais da nga dem ba benn instant affaire yi mel ni lu yàqu nga retourné waat. waaw waaw waaw. mais mu ne métti ci biir bi la dal nga dem faj ko ndax dafa yàgg si yow. Mhm. yaa ngi may dégg. waaw loolu waaw waaw loolu am na. Hmm. sama waa ji dafa mel gis nga ko. lu am rek laay wax lu amul du ma ko wax. moom soo yow yaa ngi nekk benn nit boo xam ne comme ni ma ko seet bi waxee nee naa su may seet damay hmm. xool comme ni may xoolee caméra yi nii lañ may tegalee jëmm doomu aadama ji. maa la wax ne la di am doom bu tudd Serigne Saliou. macha allah. man maa la ko wax man yaay Fall te di ko am dinga am doom bu tudd Serigne Saliou Mbacke. yaa ngi may dégg. waaw mu ne ndax dangaa am mag bu jigéen buy sëy ndax dangaa am mag bu jigéen buy sëy am na kay nekku na dem defari sëyam na dem defari sëyam na dem defari sëyam ñibbisi na dëgguma ana sa mag bi nga ne ana sa mag bi non mu ngi fële mu ngi waaw dëkk bi fi muy sëy ba xam nga ne dina wujje ah. baa xam naa. ma ne baa xam nga ni moom dina am wujju am na ko wala amu ko. <laughs> waaw am na ko mais wante <laughs> waxuñ ko am na kay. dégguma. am na am na wax am na kay. am wujju. mais am na am na ñu ko waaw. dégguma. ne am na loolu am na na am na xam nga am na wujju. Mm-hmm. Mm-hmm. te moom sa mag bi si boppam dafa amee rab te rab da koy faral di sonal parfois. Mm-hmm. te ki mu oh. nekkal mënu ko comprendre dañ koy def ay affaire yoo xamante ni moo tax mënul toog normal. Ah, yaa ngi may dégg. Mhm. waaw waaw waaw. ba dina si am doom bu jigéen. nag. doom waaw. Mhm. <laughs> ah. waaw waaw. déggu ma. waaw waaw ok. dafa mel ni mu ne mu ne mu ne mu doy na wala ma bàyyi. <laughs> bu doyee bu doyul ma dolli rek. man pare ah, bu ma de seet daal xale koy def ah dolli dolli dolli. non ah, nga dem rek keneen ñëw ndax mu ne ligne fi mu ne nii ñu bëgg a dugg bëri man nee naa su may seet day mel ni ah. damay jàkkaarloo ki may waxal du ma ko làmb du ma ko jëf dama naan ko jàkk di ko xool di wax li nekk aw ma jot naan ku gàtt gaa ku orange gaa ku rose gaa. macha dama lay xool wax la li nekk si yow. wax la nga ah. génnee say sarax te ngay faral di saraxe nag ndax boroomi tuur ngeen am ngeen di tuur mhm. sa famille ñan ñoo siy faral di nekk di bay si ay àll seen rab yi nekk si àll bi dem leen ngeen dundalaat leen waaw mhm. ah, ok dégguma man waaw waaw waaw mhm. daman ngeen dekkalaat leen man dégg naa dax waa waa xanaa séeréer nga <laughs> <laughs> léegi nu ñu euh, ah? la république bu fekkee ma nga nuyul ma Macky Sall nuyul ma Macky Sall bu dee foofu noonu nuyul ma Macky Sall nga sëñ bi mu ne nga faral di génnee sarax dégg nga eh, ah. Ah? wala xamu da ngay di génnee sarax bu weex nag bu weex ngay faral di génnee soo mënee génnee dugub ak soow nga génnee ko instant bi nii dégg mhm. waaye mu ne baa xam nga ne tawatañ sa yaram tayuma ko su may wax du ma ko tay <laughs> mu ne tawatan ci sa yaram am na guddi yoo xamante ni da nga daan tëdd mais pour nga nelaw normal du la yomb parce que dafay mel ni booy nelaw sa dënn bi day am lu ci yéeg ak di wàcc comme genre estomac lay nirool mais du estomac ngelaw la te ngelaw bi ngoon la la dugg ay ngoon hmm. waaw ah, moo tax nelaw bi normalul hmm. da dem nga faj ko xam nga yéen foofu noonu am ngeen ay sëriñu garaaw. waaw <laughs> da ngay dem ñu defal la si ñaan dégg nga fal yaaram. Mouhamed Babou kon ñu ngi koy jaajëfal. ok. waaw jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup xam naa bu keneen ñëwee rek yaay Fall daal di jaar ak moom.